merci beaucoup Large ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax gannaaw loolee nag dañuy daal di ñëw ànd ak euh, ajaratu euh, Ngoone mu daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne mooy cas euh, sur kaa tey dafay ñëw ak ñun daal di dugg biir police ginnaaw juróom-ñeent ci ay policiers yi nga xamante ne teg nañ leen loxo ginnaaw bi ñu luubalee alal bu toll ci 200 millions ci suñuy koppar ajaratu Ngoone. ay euh, malien yoo xam ne euh, seen liggéey mooy di transférer ay xaalis ak yooyu mm-hmm. ñoom nag ñoo jóge woon seen kër ci euh, dimanche boobu ay 4 heures du matin moo jot mm-hmm. bi ñëwee ba fi nga xam ne nag moom mooy sortie neuf am ñaari L200 yoo xam ne amul immatriculation ña ci nekk itam solu ñu tenue ak beneen moto waaye ñoom dañoo ñëw présenté wu comme étant des policiers. Mm-hmm. ba ñu ñëwee laaj leen fan ngeen jëm ñu ne leen aéroport la ñu jëm ndax am ngeen ni bagage ñu ne waaw ba ñu ñëwee itam dañoo daal di xool ki nga xam ne oto bi ñu doon dem ñaari nit moo ci nekkoon. Mm-hmm. muy euh, kii yóbbu xaalis bi ak ki koy dawalal. bi ñu ñëwee itam dañoo leen ne euh, taxaw leen daal di ñoom mato nañu au nombre euh, ay dix personnes yooyu. mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi euh, Pape Ousmane bi nga xamee ne nag euh, ñëw nañu la ñu def mooy dañu ko wax ne euh, ki doon dem yóbbu xaalis wàccal jën ko dugg ko ci beneen oto muy seen L200 bi nga xam moom la ñu yoxe woon euh, bi ki nga xam ne moo doon dawal ñu jël ko oto bi doon dawal ñu ne ko dama toog ci ginnaaw amoon na ñaari valise yu si nekkoon valise yi ci nekkoon benn valise bi def euh, moo defoon 300 euh, million de francs CFA. Mhm. beneen valise bi def ak beneen valise boo xam ne moom moo def seen ay yére bi ñetti valise ma leen waxoon sànq bi loolee amee nag ñoom bi ñu waxee ne ay policiers la ñu dañ leen a dugal ci seen L200 ànd ak ñoom Euh, yóbbu leen fi nga xam ne moom mooy euh, ci terrain football bu nekk sortie neuf boo ñëwee ba rond point mbaaw am na foo xam ne boo fa génnee am na foo xam ne xale dañu fay footballee donc policier bi leen teewee foofu lañ leen yóbbu euh, bi matin jotee ba 7 heures du matin ci information nga xam ne am nañu ko dañ fa nekk ak ñoom ne leen xaalis bi da ngeen ñu ci jox quarante pour cent ñu bàyyi leen ngeen dem dans le cas contraire leen di déféré léegi ñoom ñu ne dañoo bëggoon a dem voyage wax nañ leen ne leen ci jox 1 million ndax loolu ñu ci am bariwul propose nañ leen sax ba mu mat 5 millions de francs CFA waaye nag nanguwuñu bi 7 heures du matin jotee lañ leen yóbbu ca commissariat bu mbaaw la ca doy waar mooy commissaire ba yëgul woon ne opération boobu la am na. ba mu ñëwee tam lañ ko koy euh, euh, soogaa wax waaye la ca doy waar bañ leen laajee ñoom xaalis yooyee anañu dañu wax ne euh, jàpp nañ leen ak xaalis waaye 450 millions donc lañ leen jàppee. waa ji nag ne ko du 450 millions waaye cinquante million la. Mhm. wax ndax yow ba ngay jël benn xaalis bi di ko génnee ñun gis nañu la ndax vidéo itam maa ngi ak moom ñi nga xam ne dañ leen doon jàpp ñoom dañu amoon ay vidéo yu ñuy def ah, yemuñu ci loolu bi nga xamee ne jàpp nañu am na kenn ku ci eh, takk der yi ko xam ne dañu ne kooku Baye Fall tudd ah, kooku moo ubbi moom moo jël xaalis bi. léegi nag bi commissaire bi ñëwee ñu wax ne kon nañu compter bi ñuy compter waat xaalis bi moom euh, Baye Fall moomee dafa ñëwaat andi euh, lu toll ci 2 euh, millions dolliwaat ko ci xaalis bi. Mm-hmm. yore woon na tam benn saak boo xam ne dara nekk ci woon léegi bi loolu amee nag commissaire bi daal di ubbi ci ab enquête waaye dafa dégager responsabilité ndax moom yónneewul te yëgul waxul kenn ne demal def opération de sécurisation. Mm-hmm. mbir yi noonu la demee ci jamono jii ñoom ñëpp ñu ngi dégg. Euh, muy euh, policiers yooyu nga xam ne euh, teg nañu leen loxo ndax ñoom ci li nga xam ne wax nañ ko mooy xaalis bu toll noonu naka la ay nit di ko mën di ko jël di ko doxantoo li ñuy joxe comme argument nee nañu fii ci aéroport bu Dakar bu nekkee zone UEMOA am nga droit circuler ak yenn xaalis boo xam c'est illimité l'essentiel mooy na ko déclarer te ñoom dañuy yëngu ci jaayum ak jëndu or lu toll di ay Dubaay ak yu mel loolu moo waxal xaalis bi mais police li mu wax mooy xaalis leeral fan la jógee mm-hmm. ñoom maliens yi nag ci jamono jii ñu wax ak yéen ñu ngi woon ba tey dig mhm. ndaxte li leen téyewee mooy xaalis bi pour ñu leeral ko euh, euh, par contre ñeneen ñi nga xam ne nag ñoom euh, téye nañu leen muy policiers yooyu nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon li nga xam ne moom lañ leen di toppee moom mooy waaw li nga xam moom leen di toppee moom mooy malien yi li leen toppee mooy blanchiment de capitaux loolu la leen toppee ne dañu dañu koy def waaye policiers yi dañ leen toppee <coughs> lu jëm ci euh, séquestration extorsion de fonds ñoom loolu la loolu la ñu toppee ñi nga xam ne ñoom ñooy policiers yi mm-hmm. léegi li doy waax am na ci yeneen ñaari couple mooy euh, benn couple ku jigéen ak ku góor koo xam ne itam takk der ci enquête bi ñu doon def teg nañ leen loxo na dañoo njott ne euh, policiers ba ñu jëlee xaalis bi ñoom la ñu dem dénk leen ko ñooñu tam teg nañ leen loxo léegi li li si dañ doy waax mooy bi ñu leen jàppee ñoom ba andi leen fi nga xam ne moom mooy ci commissariat bi dañu dem demaat seen appartement te mhm. appartement itam dafa amoon vidéo de surveillance ñu def perquisition foofu itam jëlaat nañ fa lu toll millions de francs CFA moom itam loolee mi ngi ci xaalis bi dañ leen jël nag yóbbu leen fi nga xam ne moom mooy commissariat bu mbaaw bu ñu leen yóbbu commissariat bu mbaaw commissaire dafa dégager responsabilité parce que santaanewul opération de sécurisation ñu mhm. andi leen central bu Géejawaay ñooñu ñoom ñoo saisir euh, les éléments de vidéo yu montré que ne kii dafa soustraire de l'argent xamuñu ñaata la te ñoom ba ñuy compter xaalis bi pour convoyer ko tamit dañu def ay vidéo compter xaalis ba mu mat vidéo yi tam ñu ngi ci ba bañ koy dugal euh, fi nga xam ne nag moom mooy euh, moom mooy ci oto bi ñu ngi ci euh, présentement dans les locaux de la division des investigations criminelles jot nañ ne nag dinañ leen déférer devant le procureur kooke moom mooy am décision bi nga xam ne dina ko ci jël d' accord d' accord jërëjëf euh, Ajaratu Ngoné euh, beneen bi euh, da ngay demam ñun ba sûreté urbaine cette fois ci ñoom wax dëgg yàlla jàpp nañ ci yu bari yoo xamante ne bari na lu ci mel ni association de malfaiteurs vol commis dans la nuit en réunion avec violence sur la voie publique mhm. et usage d' armes Euh, yooyu yëpp daanaka ñoom taxaw nañ ci euh, ci euh, démb wala barki démb ci guddi. d'accord muy liggéey bu am solo boo xam ne aliment yu surtout urbaine daal nañu koy def loolu la ñuy xaar ñoom ndax insécurité bi nga xam ne bari na ci dëkk bi barki démb boo Ndiaye ñu ngi gis fii ci Sénégal 92 pont boobee ab waay bu jóge ci scooter ku jigéen ni ñu ko songee mu dem bàyyi fa jigéen ko ba ñu agressé ko ba vidéo yi nekk lu viral loolee ñi nag ñi nga xam ne jàpp nañu leen mën nañoo jàpp ne ay gone yu ndaw lañu ndax kenn ka moom nee na ab menuisier métallique la mi ngi juddu ci atum 2002 keneen ki moom moom nee ab tailleur la mi ngi judd moom tam ci euh, mhm. ñoom nag euh, jàpp nañ leen comme ni nga ko waxee léegi li ñu leen di toppee bokk na ci association de malfaiteurs vol commis la nuit en réunion ak violence sur la voie publique usage d'armes blanches de moyens euh, roulants muy ay faits yoo xam ne nag foog naa ne code pénal daf koy daal di daan li xew moom mooy ci bés yi ñu génn gis nañu ci côté autoroute beeg alentour yi ñu fay am ay nit yor scooter yor ay ngànnaay di eh, arrêté ñenn ñi ci borom oto yi parfois di am sax ay violence yoo xam ne eh, def nañ ko seen kaw ngir mën a sàcc seen alal eh, ci noonee nag ay éléments yu sûreté urbaine yu nekkoon en patrouille ci autoroute bi dañoo daal di gis ñaari individu yoo xam ne doon jéem a tenir en respect benn dawalkat te itam paaka ngir rek daal di jël li nga xam ne moom moo ko moom ci noonee ci lañu intervenir boobee <coughs> sax kenn ci ñoom muy fàllu di gën a góogee dafa doon jéem tëb miir bi nga xam ne moo nekkee foofee ca camp vigilance su suñu takk der yi euh, daal dinañu koy rek euh, teg euh, loxo ki nga xam ne itam moom mooy élément sûreté urbaine boobee xam nga nag boo jàppee boo ñëwee itam da nga wax lan moo tax ak seen circonstance mu ko jàppee wax na rek na mu def ba daal di leen di teg loxo interpellé ko ak it acolitam boobee nga xam ne mu ngi doon jéema a tëb miir ci ab door dàqe bu metti nag lañu ko rek daal di jàppee ci jamono ji ñoom itam mën nañoo def na sangre maa ngi ko naan Pape Ousmane ni ko waxee frappé la ñu wax <laughs> que bari woon na ci jamono ji ñoo xam ne li ñuy ñaawlu wala di ko jooytu mooy ci insécurité boobee ah, ci borom moto yi nga xam ne dañuy këf yenn saay saak daw bu fekkee da nga naa résister parfois ñu wax ay armes blanches ak yu ni mel donc lii la ñuy xaar ah, mhm. ci élément de euh, sécurité ñu assurer la sécurité des personnes et des biens dëgg nekk na un problème majeur ci euh, li nga xamante ne moom la Sénégalais yi Euh, ñu ngi ñuy wax ni autopsie bi ginnaaw bi ñu ko defee ci ñetti xale yooyu nga xam ne dañoo faatu woon ci euh, oto bi fële ca caaro yi dañoo euh, nemmeeku ne dañ leen a asphyxié mu nekk loo xamante ni doy na waar te saa su ne ñu ngi nemmeeku ñii soit ñu ngi subir ay agression wala xale yi nga xamante ne dañuy réer tout le temps mm-hmm. mu nekk loo xam ne jaaxal na nit ñi donc problème sécurité euh, nekk na problème boo xamante ne war nañ ci euh, taxaw bu baax a baax a baax gën a saytuwaat surtout pont Sénégal 92. man mos nañu hmm. fa agressé donc xam naa li nga bu baax a baax a baax li nga xamante ne moo fa euh, nekk certes nag léegi xaw nañ ko assainiraat ba mu baax mais am na foo xam ne je pense kàmb lañ koy wax côté boobu la nekkee donc dañuy jël sa alal dem dugg foofu te doo fa mën a ñëw fekk leen fa mu nekk loo xamante ne doy na waar loolu te war nañ ci gën a taxaw état bi ñu gën a bàyyi xel li nga xam ne mooy euh, wàllum sécurité Pa Ousmane même ba ci bande filaawe xaw ma léegam déet mais ay jamono aussi am na comme ñi ngay wax ci suufu pont euh, euh, Sénégal 92 bi mhm. ñu naan ko pont de l'émergence mhm. euh, ñi nga doon fa gis mhm. yu mel noon it daan na am ci bande filao yi et je pense que du foofu rek ah, bëri aussi yeneen zone yoo xam te ni yu mel noonu am